amoon na fa ndox mu bëree bari ba nga xam ne couleur bi sax euh, changé na euh, loolu nag li ko waral mooy euh, ak lu mën a am moom dex fu mu mën a am rek dex wala géej ndox yoonu ndox dafay dem ci dex walla géej donc lac bi pour mu mën a am avant même il faut que ndox di fa ñëw ci taw bi ndox mi fay ñëw mooy ndox miy jóge ci plateau de Thiès de jas ñoom mooy aw boori Mbambilor di ñëw ak li nga xam ne moom mooy jóge Kounoune loolu moo taxoon taw bi bari na comme sama naataango ni mu ko waxee daaw daaw at yi passé fanweeri at yi passé suñ jëlee moyenne ndox mi daan wàcc ay 300 millimètres la woon 400 millimètres daaw lu mat 800 millimètres moo wàcc 800 millimètres nag fu mu wàccee il faut mu mu dem fenn. donc euh, léegi li nga xam ne moom moo am bi mu amee loolu président daal di ne nañ ci jóg parce dafa am. njeexital bu mu am ci ñi nga xam ne ñoo fa doon liggéey ci xorom si njeexital pour ñi fa doon def artisanat di fa def ay tableau ak yeneen ak njeexital ci hôtel yi sama man ak sama naataangoo bi nga xam ne moo yore mbirum environnement ñu defoon benn CRD bu ñu defee CRD ak euh, ñi nga xam ne ñëpp seen xam-xam dafa màcc ci loolu ñu arrêté ay mesures waaye ay bés bii passé tamit ñu wax gouverneur Dakar mu def benn daje pour seet yan mesures la ñuy jël ci mesures yooyu ñu jël mooy. juróom-ñaari bassin maanaam ay ay ay dex artificiel yoo xam ne yi dañ koy def ñaar ci benn tool bu ñuy wax tool ñu mbajaay foofu benn tiit foncier bu 43 hectares ñu am fa ñaari hectares yoo xam ne hectare bu nekk danañ fa def bassin ñett ñu def ko ci base marine française bi boobu boobu génie militaire commencé na def liggéey bi sax yeneen ñaar ñu def ko ci tool boo xam ne bi euh, Ahmed xalifa Niass moo ko moom mu mu mu permettre gouvernement bi ñu def fa ñaari bassin euh, le 19 bi passé ay bés bi passé le service yi dem visiter ko seet fi ñu def bassin yi liggéey bi commencé loolu danañu xalaat ne ndox moomu yëpp ñu def ko ci juróom-ñaari bassin yooyu dana am njeexital boo xam ne bii dana ko am ci ndox mi nga xam ne moo daan dem ci Lac Rose te su fekkee ne jar na ko tamit am na moto pompe bu am doole boo xam ne bi dañ koy am danañu permettre aussi ñu pompe yenn ndox mi ci Lac yóbbu ko ci géej gi waaye comme ni ma ko waxee Euh, euh, niveau géej gi moom moo sut niveau Lac Rose donc loolu moo doon problème bi parce que lagros Rose a un niveau inférieur à la mer merci beaucoup